jaajëfal nañ leen suñu mbokk internet yu 5M TV Sénégal ci xibaar yi leen ñu àddu ci lu ñeel wàllu dem bekk dikk bi mu mel ni sax nag dakaar dem dikk ñoom nag ñu ngay xamle ni dañuy rek arrêté seen liggéey maanaam nag suba duñu liggéey la ko waral bokk na ci procès bi war a am rek ci diggante Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko te ñu jàpp ko sax ndekki ni suba ci altine gi yem ak fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril 2023 mu mel ni sax kon lu mel moo société bi di Dakar dem dikk ñoomee ñu wax ni demuñu dikkuñu maanaam rek seen benn woto rek du liggéey ya